Bessou altine 15 juin 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat examen virologique yi may lim Qui junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeenti test yi ñu def ak positif Manam, Jérôme ben fuk ak ñent ay cas contact lañ fuk ak Nient ñent transmission communautaire ñu gis ci ñaar ci parcelle aseni ñaar ci Grand Yoff ben ci ñett ci fas ñaar ci ben ci ben ñaar ci yëmbal benn ci Richard Toll ak ñeent ci Touba juróom ñett fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malaat yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ñenti malade ñak nañ sen c'est ci dimanche 14 juin 2020 ministère de la santé et de l'action sociale ci sama bat mu ngi jalé sen njabot ci bésu tay dalé ko ci ka bu Sénégal juroomi ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti kaa yoo xam ne kaa positif lañ ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ci wër juróom benn fukk ak ñeent ñàkk ci seen bakken mu des ci suñu hôpitaux yi junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent ñoo xam ne suñu personnel de santé yi